الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يكون نجيين بسم بوابو في أربعون بنووي نوراني ستاي سنو فنويري لو حديث يلنتبه صلى الله عليه وسلم لني وقوفو إن الله فرد فرائد فلا تضيئوها wa xadda xuduudan fala taataduuha ba ba ba di jeex kulli xaal dañu fay wax ñeenti mbir mbir bu jëkk bi mooy xam leen yàlla na ci yéen ay farata ngalawaay bu leen ci sànq benn ci gën a màgg mooy ponk yi julli na mat koor yi na mat aj makka boo ko mënee zakat mat ngalawaay bu leen ci ah, sànq leen waaye lu nekk da ko utal ay xuduud xatta julli gi mbokk suñu waram dafa wut fu mu ma yem tey jii ñetti rakk lañ def sëlmal ku ko defoon ñaar rakk baaxul ku ko def ñeenti rakk baaxul loolu mooy am ci koor gi bu ñu wooree ba bisu koor ku wóor def nga lu xaraam xuduud yi atte yàlla yi noonu la nee na bu sotti dañoo war a dagal waxam kenn waru koo rey ila axiri mooy ñu xam fi yàlla yemloo ci yim daganal xam fi yàlla yemloo ci yim xaraamal gannaaw bi it mu ne am na lu yàlla araamal loolu mooy lu mu def barrage ne bu leen ko xotti waaye bu leen ko xotti mooy lépp loo xam ne nii dafa xaraam mooy loo xam ne yàlla dani lii bu leen ko laal bu leen ko jege jullit dafa war a moytu loolu am na ñeenteel bi it mooy yàlla day am na mbir yoo xam ne da caa noppi ngir yërëm leen fàttewu ko loolee bu leen nekk di ko gëstu te mooy lépp loo xam ne amuñu preuve ci ne lii dafa xaram mu jóge ci yàlla ak yeneen dagan na nit def ko la nga xam ne mooy lu xaraam mooy lu yàlla ak yenente wax waaye lépp lu yàlla ak yenente yàlla waxul loolee dañuy gis ne dagan na jullit def ko ndax la tee yàlla araamal ko yàlla mu ne yenente bi sallam mu ne da ko noppi ngir yërëm leen yàlla na yàlla wërsëgal ñu def ay farataam bàyyi ay tereem lu nekk ñu yem fañ fa war a yem wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain